na teg ko sa bànneexu bàkkan bàyyi leen daa bañ wàññi ko nga bañ tey mu rëbb a yaa fi ne tey mu rëbb yaa fi ne tey mu rëbb yaa fi ne tey sax te fal li dal sa xel kilifa yépp wax ba tey nga bañ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 ay yaay namoon naa la. maa la raw. fan yëpp sama xel bi moo ngi si bu sa xel nekkoon ci man. nga woo ma waaye woowu ma te man damaa xamoon li la dab ak li may dal ci mbedd mi di dugg sama nopp bi ma am lu ma metti lool woo sa jëkkër mu gis sama appel jëlu ma. daa jàpp rek. bu jàppee loolu sama yoon nekku ci yow man grande dame bu doy ni man. mat way woo sa jëkkër nga ñëw mu toog nga toog ba yëkkati 2 millions jox ko pour bëgg nga doon aawo mu ni ma waaw yow nga ni waaw nga war a sàcc sa bopp làqatu ndànk woo sa yaay wax ak moom ba nga doonee ñaareel waxuma ko loolu luy ndeyam ak baayam yaay man dañoo tirage man maa génn ñaareel ma xam ne ñaareel ak ñetteel ak aawo lépp benn la dama sax jugoon na ni may awo mais dañ maa sorxo sorxoo ma toogaat sarxo sarxoo la nga togat ak fi nga yoro ak fi nga jugge ak ki la yar ak ki la téye yow téeméeri lamaj bu ñu sa nobi wëndelu sax waruñu la yëngal ye papa ti na ngi ah, papa namm na la papa eh yow boko na namoon teel ñew seet ma ah papa nak xolal sama sëye leex fi mu toll may ko sama mbik nice motax gis nga ni dama bel bu yow bu yow sax yow ak sa sey lu mu neex neex da ngay fàtte sa papa ma fi adoré tamit nak yow xam nga duma la sa yaay sama xarit lolu leer na duma la fàtte ah mais yow da nga faa rafete sax waa gis nga sama kër jëkkër neex motax ma bel ni eh waaw waaw pap mo xalat lu ne makoy defal eh mo li waxon def na ko ah dafa dof yow kula la ku kuy yow di weddi ay cadeau ah man si feelar mais man si noonu la makoy ray rey papa Gaye ngi ni moom laa la doon wax mooy sama copain bi ma bëgg a takk. papa maa ngi bu baax di la jox ki mooy père Poutine nag ni la mel de daa bari ay affaire ma am ah, Poutine moom yu metti rek ah. papa mënoo bàyyi di talaata nag yow mii moom dalaa neex. loo xayma ni. kii Guèye dama ne mu ngi nii. Oh, papa man maa ko bëgg a takk comme jabar. comme jabar comment comme jabar. waaw dama ko bëgg ñaan si kenn may ma man moom bi ma xamante ne sax yàggul waaye ay jukkoom daal neex na moom ay vertu moom nee bëgg na moom moo tax mu bëgg ko ñaan si. Eh, nga xamante yàgg na wala. comprendre ko yàggul de bon. mais nag bii mooy deuxième fois ma koy gis man doon déggante téléphone rek man caaxaan taxumaa dugg. mais comment ça ñaari yoon. ñaar yoon nga gis nit bëgg koo takk loolu comme ça nii quoi bon yow dégg nga li mu wax ah. daal su ma sañoon du may ma ko mu doon sama jabar su fekkee lépp jaar na yoon ci semaine bi laa bëgg a takk waaye nag moom xam nga ku lal xàq wala kaa na mu waroon da ngay wax dëgg moom takkuma ko moom kase de. nga ni. takkuma ko moom kase waxoon naa ko. eh yow ya, lu mu la wax mu ni. dañu mmh. ma woon day takkaale yeneen jabar ci benn jour. ci benn jour. ci ay yow ñaata jabar nga bëgg a takkee yow ci benn jour. ñaar ba ñett ñaar ba ñett. waaw bon ok loolu dina may na la ko. Euh, est-ce que xam laa la bëgg wax. kii soo ko takkee mooy doon awo. mu hmm? non mooy doon awo. waaw waaw awo ba mu neex. force. baax na dégg naa. eh nay leer mooy doon awo wala. Oke, mooy doon oke. Oke. yow man businessman la. mais les businessman sont des voyous business business la. businessman. business. man import export laay def. import export. oke. Ki moom rek laa am si jigéen la mhm. aussi li ma gën bëgguma mu mar bëgguma xiif. yow def nga armée def nga armée de loolu tax defoo armée sama papa moo bëgg loolu ma def armée mais sa papa tapet la yéen doom ñu toll nii deful armée deful dara man dem naa geeru Gambie jamono ku koy Samba Sagna daaw da Kayoor Jaro yaay jàmme les années quatre-vingt ah? day dem armée leen laa la bëgg a xamal ñëw di ñaan na doon kenn nit sa xarit wala sa papa kese baa sa ndijaay parce que si bunkoor laa daan ba ni ma jël xaw ma nit armée rek dans la forêt ah, yi aw ma leneen lu may def ok est loolu mën naa nekk. mën naa nekk bon danga téléphone laa lay woo ne may naa la jabar

juróomeel bi maa mën moom naroon a ànd ñëw fii. comment. moom xam nag damay déliré parfois damaa bëri wax man nii lay def de damay wax ba wax lu may wax. eh Cuna doomu soldat nga doo war fen nga ni lan juróomi la yow loo wax. juróomeel bi laa yow sa jëkkër ñaata jabar la am. musulman la wala chrétien la wala jullit la musulman wala lan kooku ban diine moo ko nangu ah bon ba moom li nga xeeb dafa nëbb yow ban position nga nekk yow sax yow. man man ñeenteel la. Eh? ñeenteel. ñeenteel la moo si nekk en tout cas man génn fexe naa ba génn ma ci raadu quatre premiers yi moom xëccoo ma ci kenn. mais man ak moom aaw laa la waxoon ak moom jëfewu ko. jógal li ma def xam naa ko ak moom. jogal. da nga dàq papa. ci midi. allez. damay def ak saa xam naa ko dinaa ko lijjanti ak moom à ma façon. manka funka waya di yemba di moo la dal ba nga toog ak say moro ñu jug di ngay jug di yuuxu ñoom ñuy yuuxu ñu lay tànkal. sorxooloo nga sarxu sorxoolee làmmiñ du lekk moroom ma tëñurut nit li nga doon danga koy wane danga naan sama yaay moo nekk nii ba ñu ma kenn ku ma joxoñ te loo bëgg maa nga ca yar la fa ma la yare ba nga tollu fii ngay dooni ñaareel yaay loolu du dara te man géey sax dama bëgg ndax nee na jabar bu ma am rek yow yaa ma si gënal bi mu lay wax loolu fan la ko ko waxee ci biir nit ñi la mu ko waxee <laughs> nga di ca biir nit ña la la ko waxee. lépp ci wax ko waaye di la rek. góor ni moom mën nañu côté bu ne ndax boo wayut sa jëkkër way len da laa lay xamal sama 2 millions yi ma ko jox comme que doonoo aw laay récupérer tës sëy bi wax ji jeex ma xool leneen. yaay tas sëy bi moom du mën a nekk. ah sëy damaa bëgg taman géey rek laa bëgg. ba pare na kër ga sax nag dafa neex yaay naar yaag ñëpp nga fa kër gi neex xum bu am ambiance man moom fii dootuma fi des. deetoo fi si kay. ndax kërug rëba joo googoo la neex mbaa dëmm am na fa comme que lépp nga fa li nga fi lim lépp jugal ñibbi birima kontaanuma ci daabay yow xam nga sama digënté ak daabaay ak yow ñun mën dalee and du tay nga mag ñu fop dara ñaawu ci jong ñoko defandoo warna tak sama jabar mu war ma félicité ci li ma def exploit bi ma def bo xamanteni goor ñepp ko bëgg def mënuñu ko def man ma gindi leen mu ñëw fi di ma attaquer nee man damay xex diiné daf may booleek Jamra dafa may booleek ànd sàmm jikko yi daabaay lu mu ma waxul doo ko dem na ba ne ma merde booy bi dama mës a sekk ak moom xam nga ni daabaay maa xamul ni yow sett jabar nga yow. waaw mais da ko war a yëg parce que sama xarit la. mais daabaay daabaay est que ça va daabaay dafa soxor. dafa soxor tam man maa ne ko demal nga doxal ma pulo ardo nga taqal ma ko. privilège bobu kenn mus ko koo defal ci adunaam mais mom barki dem rek nga ñew sama kër naam dafa bëgg tak takk soxna daawaay mo wax lool daawaay moo ma wax mom bu yorul duñ wax ñu dimbali ko takal ko jawat jox ko quoi mu taxaw di jënd ay sat jabaru jàmm lu ci yoonam ko ar wax deug yalla man kenn musuma xamé ñak fayda ci koñ bi te du ci yow lay tambalé yow nak da ma nëbb sa bopp non da ma nëbb sa bopp gis nga Sénégal gi ñu nekk ñun dañoo am suñuy réalité dañoo am suñu culture dañoo am lu ñuy doxe mais man mënu ma concevoir man mais cest à pour wax ko sax daf may daf may tiis tellement que yéen dafa mel ni da ngeen di jël diine ji ah, jël ko c'est-à-dire salfaañee ko def lu leen neex. da nga mës a toog Sénégal dégg ku ne am na juróomi jabar bay dem ba sett jabar Gueye Teranga suma xarit la gannaaw yàlla sëy bi bu amee suma loxo yii la jaar waaye bu fekkoon noonu bu fekkoon ni lii moom a ciy fekk musuma xam ni septième jabar ngay doon waaye loolu xam nga ne bu ma ko xamoon sëy boobu du am. ah ah desan, desan. ndeysaan. deuxième ak troisième ba ngi doon. waaw mais ça vous. waaw yéen a ngi toog. ñoo ngi toog nii. joli kër yaa ngi toog. maa ngi toog maa ngi toog. waxtaan leen ñoo ngi ñëwaat ataaya bi jooni. dëgg la bébé. yow moom maa yow tey si guddi. dina mel ne bu ngoo jaayee ba ma tane nokk. tey laay dee tey laay dee. ay jéy. nii la may def di ma tëkk suba ak ngoon guddi ak bëccëg. waaw yow yaa ngi dund de. maa ngi dund. lii de àjjana la. àjjana si kaw suuf. da <laughs> da yaa ngi dara. maa ngi dara da maa la wóolu. ayii. maa ngi ko jëkkëram. mooy sax laa ilaaha illallah. ah ah kon ñi ngeen def ah, waaw ba mu bari doole. kii moo ay démb nga jàppale ko.

lolu mom du sax lu ñuy lim laame di cercer de midi à 14 h sey bi dama bëgg da fay tass ci nu mu gëna a sino sinon maatam bi nga joggé foofu ngay del duma dox ci daray caaxaan duma dugg ci daray caaxaan parce que gis nga diine ji li yalla wax mom lañuy appliquer yeen momu moomu leen ñu ha ah. setti jabal ngeen tek ko fa wala yeen da ngeen créer créé seen diine bopp bu nga xamanteni wala lu leen neex ngeen def lolu du fi amé man ma dox bëggay takk la noonu laay doxaatee ba sëy bi tas parce que moom leen ñu am ah. leen ñu voilà. daa kontaan naa torop ci sa ñëw fii te xam naa ne nag tey xaritu géey teraanga nga. <laughs> góor nekk fu mu amee jàmm lay toog. maa la ko wax. yow fooy def. bébé damay wuti ndox maa ngi ñëw. chum ndoxoy ataaya ndoxoy nit. nit bu amul ndox déshydraté soo déshydraté woo dee man xam nga déshydraté woo moom. fonkal laa xanaa xamoo sama couple yëpp ma am. couple bii moo ma ci dàqal xool leen danoo xees te xeesaluñu naturellement danoo déggoo xees te xeesaluñu. naturellement la ñu yor. loolu kenn noonu lii lii neex na de. la neex na. mu torop waaye nag taxaw leen. mais yow sa setu jabar yi yëpp. waaw amul kenn koo xamante ne dese na ci kenn mu jël ko soxna. luy loolu. kenn koo xam dese na ci rakkam wala magam ma takk ko. Ah. non non yow yow yow dese woo. yow benn nga woon sa yaay man maa ko jël. du dëgg kii Christine moo dese. ah mais nag attention Christine magam ji mag la de. am na 47 ans. loolu du problème Léontine moomu. pare nga bu jël loolu du problème. gis nga góor. góor moo garaaw. c'est que góor psychologiquement góor dafa garaaw. parce que dañuy toog gis kii am jabar ñu ñee ko te et puis kenn gënuy lekk bari. kon loolu foog ñu wàññi ko garaawul dinaa wax ak Christine mu woo Léontine ma présenté leen. au problème man comme lii ni lay def sax maa ngi ciy yëg sama bopp. maa ngi koy lan na nga yëg sa bopp. des na tuuti dootoo duggati si dox. nga ni ko lan. dog damay dox <laughs> macha allah yow ya. yaay punkal waaye dafa fekk ni sama sëy bii sama bakkan laa ci teg waaw man kër gi dama fee seey si géy teraanga moo gënal sama ndey gënal ma sama baay mais pour la ardo mooy taxaw di wax ak man nii man maay wax ak yow ya. soppeeku ma de gis nga kër gi dina seyal gay teranga ba aduna yépp xamne seyal nako mais man damay gintu wala numu demé non matam ben nga nan na fa delu sul nako aduna ak alakhirah pulaar na ya taxaw di wax ak man ni man da bay man may wax ak yow man da bay c'est la première et la dernière fois nak bu ma wowati <laughs> ah dedet ki du pour loo am loo <coughs> non mais man mënu ma mënu gëm lii léegi daal Sénégal lii fi am def lu la neex booy wax ak nit ki mu naan la kii ma gënal sama ndey kii ma gënal sama baay d'accord d'accord. <laughs> pellu di. mais Ziza man pour man jinne nekk ci biir néeg bi. Mbadou. mais Ziza lii la la nii. damaa jox xamoo lii nag xaw ma ko. ba dina Côte d'Ivoire laal te kon maa mi watal. bébé nag kaay ma wax la sama yaram yëpp boole naa ko dajale jox ko noppi. kon bu xanaa du maa la xam sa point faible. bu la noppi bi. ok baay ku sa yaay. Ziza yow yaay sama yaay. ku lay daaneel. yow yaa may daaneel. ku lay jural ay doom. Ziza jural ma ñeenti doom. sa jabar yëpp ku ci gën. yaa ci gën yaa leen dàq yow laa gënoon nag. waaw léegi jógal feccal ma. nga ni waay. tey loo deful ci man rek ci yow la. yéen looy wax nii. waaw tey laay wàccee néeg bi ba zéro degré teg ci moyenne zone. yow kon nag maa jébal sa bopp nii. tey néeg bi laa la wax dina mel ni keteme. gerte ko liñ naan géer gu yàqoo rew géwal. waaw ah. waaye naar bu yàqoo ngi ne jugal taxaw nii. jugal da fecc. kuy wut jëkkër bu ko coppati ne ko ricc digg ba na rafet. koy lak du ko wax aw ma pré pré parfait waye ya, sey ci su wer lu mu doon gor ca wax ja samal sa kaddu di dige lo man so tede man nelaw lu wax ci neex neex mën na xey soppeku hmm, bayyi ci xel sama mam naana wax naa ne ku juddul ci tàgg su naawul jaaxali mbokkam sama maam daana wax naa ne ku juddul ci tàgg su naawul jaaxali mbokkam wëy wake waykat bi waykat bi wëy na yan baalo wëy na waykat wake waykat bi wëy na wëy na waykat bi Yang bahalo wayna Wake up be wake up Go to name, go to name neex danga tër sama rom nangu la mu yor